borom boros di borom galam kachi mai boros galam mai galam to chama saros kin bol usiri musafa suaye sibensi ye borom boros di borom galam kachi mai boros galam mai galam to chama saros kin bol Yai Fatima, happy birthday to you. Satanangi nga def ci réew mi nit ñee ko wax te yaa ko def bëgg nañu ci yow kenn bëggul Serigne Moustapha asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu téléspectateur ak internautes yi ñuy seetaan ci Ken Bougoul TV dellu siwaat nanu ngir janoo ak Ken Bougoul bu Cheikh Mouhamadinil Moustapha Sy al murshid domi borom boroom bàmmeel bi nuy janook moom ci xam-xam janook moom ci xel mu sell janok mom ci luy sauver doomu adama nga genné ko ci mel nani ni defal nga ko aduna ak la ci biram ci ay yebule, biti ni ma leen ko waxe woon ci vidéo bi jiitu kenn bëggul bu Serigne Moustapha Sy mi ngi fii ci Maroc tey nag ñu fas yéene waxtaan ak moom ci anam bu yaatu sëriñ bi laata may sori ma nuyu la ngeen yokk askan wi lay seetaan. góor gi maa ngi lay nuyu. di la ziara. suba ak jàmm ci katanu sama borom jërëjëf jërëjëf may itam ma ngi lay ñaanal jamm ju sax dàkk sëriñ bi ku ne xam na ni jóg yomb la ndax nag ni waa sénégal di daj lu ne ngir nga bañ a génn réew ma noonee la am ñu ne feneen ci yeneeni réew bëgg ñu lu dul nga fekk si leen fanu ne tey nag nga ñëw fii ci Maroc ndax mën nañu xam dëgg-dëgg lan moo waral tukki bi xam nga àdduna moom xam-xam nekku da ci jàng rek dox di gëstu ji ci yokk xam-xam la bokk dox ngir tourisme ci yokk xam-xam la bokk waxuma laa koo xam ne pàcc yi nga yor yoo xam ne yaa koy doxalal sa bopp dafa bari day am ay moment da ngay soxla xam bu bees am ay moment da ngay soxla ay innovation yu bees am ay moment da ngay bëgg a dem changer quelques détails reprendre à a ca topp mooy li wolof naan benn xeer buy jam ñaari picc te gannaaw génn gi cible bi yëpp génn lu dul ziyaara ji Seydina Cheikh Ahmada Tidiane te moy sibul bi yeneen yi ci top yep ay bonus la rek sanni ma baagi ma doxal jërëjëf kon nak ñoko ko yeen yéen ñi seetaan kenn bëggul bu sëriñ Moustapha Sy wax lu sabab mu ñew fi ci Maroc la ci ëpp solo moy ziar kilifa gu mag gi nga xamni mo moo fi ci Fès di Abul Abbas Ahmad Tijani mu teg ci ni la ca dess yep nak ay bonus la waye serigne bi bonus yoy le la bëgg nak ñu waxtaan ci yag na degg ngay wax fajj à distance jile gëm na ko ndax dama ci mëna dut baaraam waral ma bëgg nga ñëw ci ay explication ndaka la ken bu gulbu serigne mustapha si mané nekké fi ci Maroc di jëflanté ka nekk Sénégal ba mu am ci satisfaction xam nga xam-xam mom ay sagari ndiam rek la sagarin jam, nak nit ci bopam la doomu bajjanam la doomu nijaayam saña am xew mu ñew jaamu ñu may ko walam ci njaam gi amé ah, xew-xew yi xew bi mëna am jorof di ji boo demee jaamu ji ñu may la xew mën naa am kawlax di boo jaamu ji duñ la may xew mën a am wakaam te yow mi jaamu ji yaa ngi table Tiwaawan eh, bu dee ñoom ñoo la mën a may ci njaam ndax li ngeen bokk waxuma laak rabbul aatil azim moom it sañ naa sàkk ci xasa rabbi an yahdiyanni sawa asabil muy fexe ba moom it sagari njaam yim lay sarax yi ci kaw yoon nga koy jël Moussa alayhi salaam fu mu jógee Firawna sagari njaam yi ko yàlla saraxoon ba muy dem kur maam su ay yan la ay ngémén xalkubeer deel ju tooy xasa raa ba yanara rabbi liif nunara yaa xalkubeer deel nuun yanara xasa rabbi an yaxdiya nii nuun yax nii wal xalam kama yastaruun ma ant mim arrahman ma ant lif ku dok yahni ihdina siratal mustaqim ma ant nun nun rega ñewat nun grâce akan sang bi ya rasulullah wa da ko moy patron ci mbindeef yi waaye yàlla bi muy sarax Moussa alayhi salaam xam na ne Muhammad mooy patron mais teraxul Moussa yàlla jox na ko sawir njaamam bi mu demee ci Suhaybu alayhi salaam waaw mais Suhaybu xëyru xëyru jox ko yadde daf na doom bu jigéen bi dugal ci biir nga xoolal na yet sàngam nga jox ko ko yet bi mooy lif gu dog gi bi doom bi demee jël yet bëgg a jël yet yet yi lànk benn yet tëb ne ko man la mu ne mais bàyyi man waaru na ndax yet yi nga ma jëlloo yet bu ma jël mu gàntal li ma jaaxal ci biir yet yi am na yet boo xam ne toujours mooy manifesté wu wane ne moom moom moom war a génne suñu maam su ay boo xam na ne yet bii du yetu simple yàlla saraxul ay sagari njaam mun a doolu héritage boobu noonu mais Moussa dafa jënd prix ñaat ñaata at ci sàmm ci jukki ay teen ndox ba xëy am lan couronne jàkkaarloo ñi ko yaroon fas yéene dagg buumu njaam gi ba xew-xew donc yàlla bi doon sadaxe sagari njaam yooyu moo fi nekk ba léegi moo tax ci biir loolu xam-xam bi ngay jàngi ak bi nga donn ak bi yàlla sàkk ci saraxi njaam sagari njaam jox la laajul ci place foo mën na nekk la ngay soxla mën ngaa soxla muy dox loolu mooy waral nga mën a nekk fii kaayee nekk Espagne yaa ngi koy rege nga mën a nekk fii ya nekk Italie taxawuñu ya nekk Gambie taxawuñu ya nekk Maroc taxawuñu ya nekk États-Unis taxawuñu ya nekk Sénégal taxawuñu yi nekk fi taxawuñu allahuma la adru yàlla la sob waaye toujours li may wax rek jaam la abdun faqir la waaye toujours wamaanu nasiluhu ila bi xadrin maxlum yàlla ma ko sarax bés mën naa ñëw nguur jeex nguur judduwaat ñaata waa bu xaaw moo am toujours temps Hmm? Wabuhay. Wahid lang. Isnaini. Salasa. Arba. Hams. Daman nga gusto yuwan ko kon. Wabuhay lang. Wabuhay ta ha fu mu jexé yanara o man ittada xol alquran lan la yanara kon ke xol bu jagge yalla sarax la bu yàqoo lépp yàqu moo tax lu mën a xew rek na la yàlla sarax nga am xol bu lab ñi res bàyyil sànni ma bàyyi ma doxal jërëjëf sëriñ bi yàlla yàlla fay la yiw kon nak yéen ñi ñuy seetaan kenn bëggul bu sëriñ Moustapha Sy mi ngi fii ci Maroc wax na lan moo sabab tukki bi expliqué na itam ci wàllu mystique lu leer nañ foo mën ne ci réew yi nga jëflante ak kenn bëggul bu sëriñ Moustapha waaye sëriñ bi loolu ci cadre mystique la ma laaj la ci wàllu organisation ndaka nga koy organiser ba ku ci nekk nga mën ko servir. da ngaa gis ñu changé numéro téléphone yi. te moo war na mbir yi màgg na boo wootee ci numéro whatsapp yi ndaw yi ngay jot dana la wax ci ke consultation bi nekk ndakaaru rek ak bi ne ci réew àdduna yi moo valable man même bu ma yorul yet moo bëggee consulter consulter na bépp réew bu ñu bañ ma faj bu fa suuf am wala bu fa xeer am waaye tant que xeere nga fa suuf fa nga fa plante ba fa nekk mën naa caa liggéey ci kattanu yàlla ndax lay doxal mbir yi nekkul ci palante fii ak sungu fii yàlla sarax na ci ay jaamam am ñoo xam ne waxal rek ñu dégg yàlla faj teral ci ay jamo am ño xam jakar la ak ñom rek ñu wax nga wax ñu deg yalla lay sop ndax mo sak sagari njaam du sarax ko mom kon du mom moy doxal yalla lay sop yoy nak bu xasse am ba nga xam ko dafay laaj organiser wu rek man na baña yomb ndax laaj ñay frais mais aduna dara yomb mais jappal ne lu yor ci bagage ndakar rek rek ko amul kaayu mayte yàlla koy sarax gor kon nag alhamdulilahi rabbil alamin nu nara ba tey bagi ma bàggi ma doxal mu ngoog kon nag yéen téléspectateur ak internet yi ñuy seetaan kenn bëggul bu Serigne Moustapha Sy ni ngeen ko xamee mi ngi fii ci Maroc yow mi ko soxla foo mën a nekk ci biir Maroc mën nga woote ci numéro yooyu ngay seen waaye nag appel WhatsApp rek la mën a yow mi nekk Sénégal wala feneen ci yeneeni réew mën nga woote jot ay ndawi kenn duggul bu sëriñ Moustapha Sy ñu teg la ca yoon wa war sëriñ bi balaa nuy tàggoo dina am nag lu ma la laaj bu ma am la ci ni ñu duggee ay aéroport bu jam ñaajo ni ñuy duggee ci avion bi ba ni ñuy egsee fii ci Casablanca barab boo foogul ni nit mën na fa xam kenn duggul bu sëriñ Moustapha Sy rek ndeke ñoo ñoo ko gën a xam ba ci avion bi naar yi nga xam ni sax dégg nu wolof découvrir nañu kii mooy kenn bëggul bu Serigne Moustapha Sy. xam nga mooy li ma la wax sànq rek jaam laa rek bu suufee lool sama kanam borom te dafa am ñaar yoo xam ne nag yàlla kese rax gor bi jiitu mooy sante naa ko laa Mawlaaya Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy. yàlla dogal na tey su ma romb même bu ma muuroo ba kenn du ma xam dara na kii kenn bëggul du Serigne Moustapha Sylla waaye lañ tey teg mooy jafe ngaa gis torop ñaata at ma topp na bëgg laa gis mënu ma laa gis yàlla la sopp donc loolu danga koy jàng rek noonu ngay rombaatee ay nit ñu bàyyi seen lépp may la nga jàll te yow sax doo leen xam loolu moo lay may nga xam ne àdduna am na liñ kondir boo xam ne boñ ci nekkee mooy la ma waxoon fële même boo wéetee ci nit ñi bul wéet ci yàlla sa borom ndax yàlla samih naa wa ataax te mbir yi ngi soppeeku yu bari te yiwul nga xew ci kanam na di comprendre la ma la waxoon ay at ci ginnaaw mooy bu ma wéetee ci yéen tamit wéetu ma ci yàlla suma borom ndax yàlla sarax na ma xol bu sell sarax na ma suma waajur wax ma dégg ne xare naa quarante-neuf muy juróom fukki at yu manqué benn mu ne xare naa ko musuma sàq musuma dirivalis musuma wàññi dépense te defal naa la allahuma kon loo jamut ci yow la kon nag wa maa nunazziluhu illaa bi qadarin ma'luum ba tey sànni ma bàyyi ma doxal. mu ngoog kon nag téléspectateur ak internet yu ñuy seetaan dañuy doy loo loolu rek ci waxtaanu tey bi di leen dig daje suba ak jàmm incha allahu taala waaye laata boobu. ma toftal ci actualité nga wax nu ci sa xalaat ñu yëkëti jotaay bi président Macky Sall bi muy juggé ci bop nguur gi dafa signé ab décret wax ni ci gouvernement ñi fa massa nek ministre bu folli ko dafa am salaire bu ñu leen di dompal tollu na ci million ak genn wal ci ñenn ñi jamono yi nak président Bassirou Diomaye Faye daf ko dindi euh, loolu noo ko en tout cas président Diomaye maanaam lépp loo xam daal njariñal réew mi la donc nuñ koy bàyyi xel nag waxuma waa toog muy dox waaye jàpp naa ne daal lépp loo xam ne gis na ne population bi ñoo ko moom kenn waru ko joxe lam te man man ko ca def nag xanaa la ma waxoon démb rek mooy yoon bi nga nekk yàlla na ci yàlla gunge yaa ngi Seydina Ousmane te yàlla dëgëral leen ci sànni ma baagi ma doxal. mu ngoog kon nag la ñu war a wax jeexul waaye waxtu wa jeex na sëriñ bi nga tàggoog askan wi ba beneen incha allah. bak tey sargal Mawlaaya Aseex Seydi Mouhamadou Moustapha ku mu am yàlla raw ku mu am yàlla mucc ku mu am yàlla womle ku mu am yàlla yàlla aar te yàlla sàmm. wa ma salik alalay ba xosisin wa salaamun aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu sant sama mbokk bopp bi kenn bëggul bu sëriñ Moustapha ndax daf ma wax wax bu doy waar moom kenn bëggul mu ne man dama defa ne dafa am ñu ma yéenewul sëriñ Moustapha motax ñuy sét jamono bu nekk luñ ma sosale ndax ñu isolé ma ci sa mune ma te titeruma yàlla moma bolé ak yow mune ma te ken manu ci dara nak وتبارك الله mu defoon daw ci gàmmu gi def na ren lu ko ëpp ma bëgg ngeen bàyyil ma fi kenn bëggul bu ngeen xamul ci lu mu nekkit ngeen may ma man ma xam ci lu mu nekk waaw ndax ñemewul teg tànkam fu ma ko waxul walla bu koy def nag day fekk yëguma ko